force amuñu makkaan te am na ay parti politique yoo xam ne musuñoo dem ca ay parti politique yoo xam ne ci réseaux sociaux yi rek maanaam la nekk te loolee war nañu ko lijjanti war nañu ko jubbante naam nag am na ci geneen anam goo xam ne ñenn ñi jàpp nañu ne lu jëm ci wàllum démocratie kenn ku nekk am na sañ-sañ maanaam taxawal sa parti politique yéen a gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba parti politique yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal bëri na genn xeetu bëri goo xam ne fu ko waay natt daan na koy passé ñenn ñi bu ñu nekk ci benn bu ñu fa naqari génn créé seenu parti ñenn ñi dañu leen di dàq yéenekaay gi di Sud Quotidien wax ci élection locale yi nga xamante ni dàqaat nañu ko te amul benn déggoo boo xam ne am na saam nee ma consensus yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi dañoo imposé atum 2022 an mi nga xamante ni moom la ñu war a amal élection législative yi ana lan la njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam di waajal ci atum 2022 ndax atum 2022 ana nan la ñu fa mën a amalee ay élection locale ak ay élection législative njiitu réew mi di président Macky Sall li mu bëgg waxugu ko ñi nga xam ne nag ñooy kujji ki ñoom nag nee nañu duñu ko nangu tey duñu ko nangu lak duñu nangu Macky Sall di dàq li nga xam ne mooy élection yi Macky Sall moomul li nga xam ne maanaam mooy calendrier républicain bi ko neexee mu organiser élection yéen a kaay gi nee na nga xam ne ñooy kuje gi nee nañu Macky Sall dafa am ab agenda secret ba yéen a kaay gi de la témoin daan na xëy ci lu soxal wàllum xëyum ndaw ñi nga xam ne président bu ñëw dina ko waxtaanee te teewul daf say la ci yéen a kaay gi nee na Abdou Diouf bi mu ñëwee nee na woon dina lijjanti li nga xam ne mooy xëyum ndaw ñi waaye nag ba ñu demee ba sa ci pandaw ga Abdou Diouf da sa laaj ci Abdoulaye mu ñëwee ci bopp réewum Sénégal Sall waxoon na ne dina lijjanti li nga xam ne mooy xëyum ndaw ñi waaye nag ba ba su ci pandaw ga Abdoulaye Wade da Sall ji njiitu réew mi di président Macky Sall bi mu fi ñëwee ne dina lijjanti nga xam ne mooy xëyum ndaw ñi waaye nag ba ba su ci pandaw ga li xew ñëpp gis nañu ko yéen kaay gi de la Soleil nee na emploi des ci Déthié Fall mi nga xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne ginnaaw kere na parti boppam dafa war a ñàkk li nga xam ne maanaam mooy ma bëri àttekat la ci université Cheikh Anta Diop bu ci lu jëm ci wàllum yoona nee na Déthié bu dee nag dafa démissionné créé parti boppam dafa war ñàkk li nga xam ne mooy mandat député ma yéene gi ba tey maître Abdoulaye Babou di ab avocat nekkoon fi ay jamono député nee na Déthié nekkul député ci parti réew mi waaye nag ci coalition la nekkee député bu dee nag ci coalition nga nekkee député bu la neexee mën ngaa démissionné ci sa parti politique am ay gaañu gaañu ak ñi nga xam ne ñoo si jot a ñàkk seen bakkan Serigne Mountakha Mbacké Bassirou cinquante millions yi nga xam ne génne na ko cinquante millions yooyu nag jébbal nañ ko daayira Hizbut Tarqiyyah ngir nag ñu daal di koy séddale yéene kaay gi délibération xëy na ci Guy Marius Sagna dib boo xam ne ràññee nañ ko lool ci réewum Sénégal waaye journal bi nee na li ñu ko mandat dépôt bëri na lool li ñu ko may ay liberté provisoire bëri na lool waaye nag li ñu ko garde à vue journal bi nee na ëpp na fanweeri yoona yéene kaay gi di réew mi ne ma Aliou Ndao moom yàq na musiba ak mbelengaan ki nga xam ne mooy ma jambal jaañ nee na la waaye nag dinaa leen leeral ñaari kàcc yi nga xam ne ma jambal jaañ kàcc na ko kàcc yi ma ngi ci réew mi quotidien imam Boubacar Dianko mi nga xam ne moom la toppee ay at lu jëm ci wàllum terrorisme ci Sénégal démb ñoo ko doon atte ci chambre criminelle bu Ndakaaro waaye nag soo muy tuulee lu toll si ñaar fukki ati kaso dinañu ko ko tëj ndax dañoo gis ne numéro moo commencé 77 359 ak la sa topp jokkoo na ak yoon yoon terrorisme yéene kaay gi de la lu jëm ci wàllum terrorisme am na ñetti dossiers yoo xam ne maanaam ñoo ngi ci kanamu cour d'appel yéene kaay gi du l'observateur nee ñi nga xam ne ñoo am ay jafe-jafe ci lu jëm ci woppi coronavirus ji am na ñenn si ñoom ñoo xam ne xëy nañ di nettali ñenn ñi dañu leen a waaye ñenn ñi dañoo trox ba maara détaali am na ku ci tudd aji sow moom nag nee dund nay jafe-jafe yoo xam ne ay dépense intime sax jamono ji mënu koo la santé et de l'action sociale ñooñu ci wàllu wér gi yaram gi la ñuy yëngoo nee nañu nag fan yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dinañu yënga-yëngal dinañu wàcc ci mbedd mi la ko waral bokk na ci accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ak nguurug Sénégal te ba léegi ni France daal di xëdd na yéen a kaay gi de la Tribune nee na njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji ma ngi ci guddi gu bët sétagul ma ngi cay jafe-jafe ndax nag bëri na ay njaboot yoo bu ñu añee duñu reera ñi nga xam ne ñooy chômeurs amuñu liggéey nee nañu jàllaw ci réew mi bëri na ay pêcheur ay yoo xam ne ñoo ngi dund ay jafe-jafe jàngalekat yi kasaalika ñi nga xam ne ñooy liggéey